Mais une impression de gratitude, de gratitude envers le Seigneur qui nous a donné aujourd'hui l'opportunité de servir nos concitoyens. C'est un privilège pour nous, élus, d'être choisis parmi les populations vaillantes parmi des populations résilientes pour les représenter au plus haut niveau de la commune. Nous prenons ça comme un sacerdoce, nous prenons ça comme une charge lourde qui consiste à représenter les populations dignement, conformément aux lois et règlements, mais surtout conformément aux valeurs auxquelles on a été imbibé et à travers l'école on a tous euh, grandi. Nous nous félicitons de cet élan démocratique qui a prévalu aujourd'hui, de cet élan républicain qui a fait que nous avons pu installer notre bureau dans la plus grande sérénité, dans les règles de l'art, dans les règles démocratiques. Et aujourd'hui, on a un bureau qui a été très bien élu, tout comme on a été très bien élu par les populations de Djidé Nous nous sentons reconnaissants, nous nous sentons aujourd'hui investis d'une charge que nous avons l'obligation de mener à bon port. Et cela passe par des réalisations importantes Cela passe par le concours de l'État qu'on va solliciter. Cela passe par une intelligence avec la ville de Pékin qu'on va également établir pour que Djidé Tcharekou respire mieux, pour que Djidé Tcharekou connaisse un autre visage, pour qu'on ait euh, une ville plus salubre, pour qu'on ait un environnement plus sain, pour qu'on ait des investissements lourds, pour modifier la carte sanitaire de Djidé Tcharekou, la carte scolaire de Djidé Tcharekou, mais aussi pour booster l'économie de Djidé Tcharekou. donner aux jeunes et aux femmes la possibilité de voir leur talent éclore, la possibilité de euh, voir l'économie de notre chère ville décoller et que euh, cette économie-là puisse donner euh, aux populations euh, les possibilités de réaliser une vie encore meilleure que celle qu'elles ont connue jusqu'ici. ñu am mbégte tey jii di ci sant yàlla bu baax waaye it di sant population wu Djiddah Thiaroye Kaw yi nga xam ne ci kàttanu suñu borom may nañ ñu tey privilège yu ñu mën leen a servir may nañ ñu privilège yu ñu mën leen a nañu toll ci seeni dayo ak seeni njàmbarte ñu yëg ne lii ñu jox tey charge la maanaam sas la boo xam ne teg nañ ko ci suñu loos ñu war koo yóbbu fa leen gënal ci yokk seen dundin ci yokk seen nekkin ci ànd ak état du Sénégal ànd ak la ville pikin Pikine ànd aussi ak ñëpp ñi nga xamante ni si ay forces vives lañu nekk ci biir commune bi ak ci biti pour yokk cet gi ci Djiddah Thiaroye Kaw pour yokk économie Djiddah Thiaroye Kaw pour yokk ay possibilités pour góor ji ak ndaw ñi ak jigéen ñi pour que ñi fi nekk di fi xëy di fi yeewoo ñoom ñëpp mën a am seen dund ñu yëg ñu yokk na bu baax a baax yëg nañ di tey jii lii ñu sas lu ñu lu ñu war a gàddu la yëg ne gënuñu fi ëpp ñu fi xam-xam waaye ñun la yàlla teg suñu kanamu tey ji njaboot gi pour que ñu jiital leen pour yokk seen nekkiin pour ñoŋal seen dundin te loolu nag yàlla suturaal nañu ba ñu am bureau municipal bu xarañ boo xam ne fal nañ ko ci palin bu sell ñuy euh, sant na population ji de Thiaroye Kaw mais aussi di sant conseils municipaux yi nga xam ne tey jii wane nañu ne Sénégal république bu vaillante la wane nañu ne ji de Kaw benn pàcc la ci république boobu bu ñu mën a sagoo bu ñu mën a ndamoo ñu ngi sant kon population yi di sant ñu leen représenté ci conseil bi muy conseil municipal yi di encouragé aussi ñi ma àndal ci liggéey bi di félicité wu nag ci qualité wu équipe bi ma am am naa chance su am ñu xarañ ñu xam lii ñu boot te it mën koo doxal kenn ku ci nekk si ñoom yàlla dogal na am na cursus am na parcours am na dayo bu tax lii ñu ñu sas ñu yëg ne incha allahu rabbi dinañ ko yóbbu fa gënal population ji de Caaroy dina dinañ yokk seen dundin dinañ yokk dinañ ñoŋal seen nekkin te incha allah rabbi fii rek juróomi at dinañ gis ne soppi ko bu baax a baax am na ci population ji de Caaroy kaw jërëjëf merci